yàlla bu biir waay. mel ni fi mu toll nii da ngaa xaw a sawar. non naaj xam nga rek naaj <laughs> naaj kay. tey bés bi lan la laaj. waaw daal ñaan yàlla ma ñu ndam rek. ñaan yàlla may ma ndam ko waaw. comment dina am xeex. lu mu laaj da nga koy def. lu mu laaj da nga koy def incha allah rabbi. retour de bébé Diouldé lañ wax de. waaw loolu dara. retour de Brise de Mer. loolu dara. ñoo gën a soxal ndam fuuf. billaahi. kon ba ndam rek. waaw pare naa daal. pare naa bu baax. xam nga jaamu lu bari. waaw nuyu naa la. fay naa la. tey ñu gis na nga ànd sa doom sa sa jabaar tey naka ngeen ko àndee. waaw comme d'habitude rek ni ñu doon indee booy rek ni ñu indee woon Ahmed Deme ak Reug Reug ak ak noonu lañ koy indee muy brise de mer ak booy Ndiénu Bas 2 ñoom ñaar di ñaan yàlla mi may ndam yàlla ñu yàlla may ndam rek quoi. Euh, ñu gis euh, Bébé Diouldé le retour de le retour de Bébé Diouldé lañ wax ndax booy xool xawoon na kii tuuti mais dellusiwaat na. mais dellusiwaat bi ñoom ñaar seen combat bi est que dina dina dina yomb ci brise de mer. lamb moom amul benn lamb bu yomb ndax bu doon promoteur i lamb ji yomb la duñ ko tëgg dañu xam ne lamba ji peut-être na ñi jàpp nañ ñi Bébé Diouldé booy bi mën na koo daan booy bi tamit mën na daan Bébé Diouldé mais ñun suñu plan lañ xam quoi en tout cas liñ ko yebee tout à l'heure léegi bu arbitre suulee nañ ko wane quoi incha allah rek. foo toll yow yow fan nga toll bàyyi nga wala ngi toog di xaar. waaw non man bàyyi naa quoi léegi damay gunge booy yi di préparer sama jubilé quoi. ok waaw euh, bu ñu wooree ko bëgg a jàpp date bi kenn xaaju mbokk yi arbitre bi sifflé na combat bi ci diggante Boy Ndiambour ak carrière numéro 2 door na léegi Boy Ndiambour door na gauche droite jël na ko Boy Ndiambour carrière numéro 2 Boy Ndiambour carrière numéro 2 Boy am na benn loxo ci ngemb lu mu ko bëgg def carrière lu mu def carrière Boy Ndiambour lu def daan na carrière daan na Boy Ndiambour vite fait bien fait carrière numéro waaw carrière numéro 2 daan na Boy Ndiambour waaw waay carrière waay ji nuyu naa. Zia sama doom day ziar. ci waaye maa ngi si jàmm naka waaw maa ngi kulli. tey kawaandi. waaw tey kawaandi booy bi nii lañ indi tey. moo kan la. moo ku muy bëreel sax. saawaalo moo saawaalo la. ni ngeen ko waajalee. waaw waajal comme niñ daan waajal ngeen booy. boo ko xoolee yaram xam ni gërës nekku si booy bi àllel la day entraîné day mbapat day jël ay nagax yëpp boo ko xoolee tey xam ni nit ku pare la quoi si wàllu contact gars moom daal lu saagane entraînement quoi te yàlla xam na ni fu ko entraînement fekk fa la koy bàyyi chaque instant de si ne te booy bu mën a bëri la après nag yoroo say bën nga xool li bu baax a baax relève la. kon suivre booy bu baax a baax a baax bu baax a baax. xalil kaay xalil kaay. moo jëf foo la saare. maa ngi ziar. dëkk sant bu baax alhamdulilah. maa ngi laaxut daal foofu toog jàpp sa maa ngi si liggéey bi rek de. xëy na affaire yi ñëwagul rek. waaw. fan fan nga fan la gars yi toll ak yow. non tey dañuy wax tey lii suba ñu wax lalee xama dara dara lu dara lu officiel daal. ci yow la wala ci promoteur bi wala ci adversaire no du si man de parce que man lam mooy sama métier quoi donc du si man. xëy na peut être promoteur yi ñoo mënagul wala adversaire yi bëggaguñu. yan yan adversaire lañ lay wax. non bari na bari na adversaire yuñ ma wax moom wax dëgg yàlla mais xam rek lam moo baaxoowul euh, bon baal ma toog daal déglu. mais am na ñu ma bëgg a bëreel am na ñoo xam ne bëgg nañoo bëri. ñan nga bëgg a bëreel. non bari bari na sama ay morom rek. Ah, yow ma ñett limal ma ñett nga si làmba ji xam nga ñi nga xam ne war naa bëri. limal ma ñett ma xam. non xam nga ñi nga xam ne war naa bëri ak ñoom. bari nañ bari nañ. ngeen ñëw jàmm pare naa. mercredi laa bëgg ah Dera nañ déggoo. Ah. waaw nan ngeen àndee seen booy. waaw suñu rakk la te champion la daal xam nga mm, ba pare bëgg na bi donc dañ koy ñaanal suñu borom rek suñu borom jox lu gaaw lu sedd lu ne si moom. baax na kontaan naa jaajëf jërëjëf. sëñ Touba mooy. baandi baandi. ah. ah man man du ma baandi de. xëy na gars yi di gis loolu rek. foo toll. Ah, ñu ngi si. biñ bëree ba léegi ñu ngi nekkaat suñuy entraînement rek ñu ñuy woo dañu proposer ay komba ay spécial ñu ngi déglu rek xam nga ñun moom daa am ay mag yu nekk suñu ginnaaw ñoom lu ñu wax rek loolu lañu ñu wax quoi di ñaan yàlla defal ñu jàmm rek. boobu naka ngeen andee seen booy. ah. naka ngeen andee tey mbër. waaw tey waajal nañ ko xam moom moom yàgg naa dem guerre xam na bal bi jam quoi dañ koy ñaanal rek tey li mu liggéey mu confirmer ko fii ak ak jàmm quoi xam nga mën ngeen entraînement def lépp ñëw ba si géew bi am lu la topp yàlla bu ko dara topp yàlla bu ko cat topp daal ba ci biir géew bi yàlla defal ko ndam waaw ah, di la bëggee bu baax di la wax gis nañ sa sa liggéey ci bi nga def ci lamb bi nga ci duggee yàggul mais yaa ngi ciy bay sa waar daal ba ñeewoo kenn di la ñaanal loolu continuer di la ñaanal site bi ngeen yor nii dem ba doon ay télé télé si barke Seydina Mohamed. kontaan naa di bëggee waa Yoff yëpp tamit xam nga ñoo xam ne bu ma jugee ñu jóg bu ma ñu toog. bëgg naa la di bëgg naa cameraman dëgg la bëgg naa la wooy delloo bëgg da ngay lewtoo xeex ngay jàng wala looy def waaw damay échauffé wu rek waaw damay échauffé wu moral bi fu mu toll waaw nice alhamdulilah kenn jàppaloo ci gàllank ah kenn jàppaloo ci gàllank non nice alhamdulilah nice waaw lan moo ci des waaw arbitre soufflé rek incha allah yàlla may ñu ndam loolu kese moo ci des kon baax na ci gàllank incha allah jaajëf Mor nuyu naa. waaw maa ngi lay fay. ci loone sant yàlla bu baax. yaay kan. may Bas 2. Bas 2. waaw yaakaar nañu bëri. maa Moussa Guy bi. xam nga Moussa Guy. waaw xam naa bu baax kay. Ah. waaw. kay bés lu mu laaj. daa mel ni pare nga de. pare naa. xaw yàlla si aar bi si dara yàlla dafa ñu ndam ko am soobee wax. ñoom xeex nga am bëri bu soobee yàlla. Ah. ragaluñ dara bàyyiwuñ dara. du yomb. Ah. ñu caagaluñ dëgg ragaluñ. wala dëgg fa tamit aussi. kon baax na ci kanam. waaw noonu la demee. ñi nga xamante ne ñu ngi leen di wax tamit euh, renta bi facile la service de taxi numéro téléphone bi 78 137 11 11 ñooñu ay partenaires yu petite production lañu waaye tam waa Trax partenaire eski gistuba ships isitam won TDR laalama alaafo watima jeni sini mbokk yi arbitre bi sifflé na Thiely numéro 2 mbokk yi moo ñu féete à gauche moo nge moo nge mu xonk li barbar wala boog barabara Thiely eh, door na léegi coup bu dal dooraat na gauche eh lay la la la waa Thiély mii Baba Thiély dooraat na ko dooraat na ko baadu ko Barabara ak Thiély Barabara ak Thiély numéro 2 Thiély mi daa dóor day dóor Barabara Thiély mbaa doomu daan du jam Barabara Thiély ñoo ngay xeex Barabara Thiély numéro barabara ak Thiély xale yaa moo ngay xeex barabara ak Thiély waa Thiély bi benn affaire la mais Thiel li muy xeexee baax na de. Thiel ak Barbar. jël na tànk ba. Thiel numéro 2 jël na tànk ba da daan wala daanagu ko daan na ko waaw waaw Thiel numéro daan na ko. daa jël tànk ba dégg nga nee dama am doole. nee dama daan na ko. oh barbar dama defar juwaat mu feelu ma barke alxuraan sama yaram dama daw foofu laa xam ne bakkan bi fii des ak mais Thank you. foo dajal toujours sax su ma amoon samay samay samay géwël. bilaay damay wàccee stade bi bilaay walaay. su ma amoon samay géwël damay wàccee stade bi. kan ngay dajal capitaine laa dajal capitaine. capitaine. combat bi dina yomb. combat bi dina yomb. non mënuñu yomb. dama la ma bàyyi kon mais moo tax comment mënuñu yomb tey. lu mu def tey daanu si kàttanu yàlla lu mu def tey daanu. lu mu def daanu. lu mu def daanu. incha allah kon baax na ci. waaw incha allah. Thiat na naa. fay naa la Ousseyn. mais dafa mel da nga ñëw seetaan si waaw doom de mooy bëre ak waa ma koy ñaan yàlla na ko yàlla may ndam ndax maa moom ñoo fondoo mu nekk sama grand kon bu teewee bu aay dama war a ñëw teewal ko quoi na suma aay damay teewal waaw da ko ñaan ko yàlla may ndam. ak léegi bi nga bëree ba léegi defe naa tey nga doog a ñëwaat ci stade waaw maa ngi soog a ñëwaat stade waaw promoteur ñoo ngi lay woo wala waaw gars yi sax su gars yi ñuy woo sax su gars yi ñëw mais affaire yi ñuy proposé maa ñoom du lamb nañu garant jël ñu bëre ndax lamb ji amul lu nooy lu métti moo fi proposé da nga leen dama leen a xeeb bu baax. comme ñan la. ndax keroog boo xoolee le 6 état bi moo ko teg lu mu attanul mais bu grand ñëwee rek ñu bëre grand bu ñëw naa pour bëre man papa papa laa bëgg papa boo jëlee nañoo ñu bëre. papa boo jëlee bu paree barke alxuraanu naa. waaw boo amee defet da ngay wër lu yomb. lamb amul lu yomb ñun ay xale lamb amul lu yomb lu métti ma fi am papa boo bu paree man par naa pour bëre moom fii. ci kàttanu yàlla am na promoteur du barke Seydina Muhammad bu ñëwoon léegi mooy bu ko kër ga. billaay man yaakaar laa nañoo ñu bëre munu maa bañ ci lu may bañ maa ko ay victoire moom maay defet ëpp ma coow lamb nañoo ñu bëre lamb xale la nañoo ñu bëre par na pour moom. bu Papa Boy Djiné. kenn ku ñëw baax na mais gannaaw yi laay bëreel. ëllëg la bu soobee ñu bëre ci gàttanu wala Alioune Sèye junior bu bëre ku bëre lamb ji amul lu nooy lu métti moo fi am ñun ay di liggéey li ñu passé nag passé nañ ko li suñ ko am dañuy xool barke maam Cheikh Rafal. kontaan naa ci yow ñoo far. bëre bi mu nangoo ak li làmb bañ combat bi dox ci diggante Moussa Gouye Gui ak Bass 2 Moussa Gouye Gui mbokk yi moo ñu féete à gauche moo ngeem moo ngeem bu lu njuli teg ci bu weex bi Bass 2 moo ñu féete à droite ngeem moo ngeem bu vax bi takk ci morso yu xonk yi ak yu weex yeeg yu yi arbitre ba sifflé Moussa Gouye Gui bas na lewaatoo bi sori àndoon na Moussa Gouye Gui ak bas na Moussa Gouye Gui abit bi woo na leen moo ngi wax ak ñoom arbitre bi sëfle waat na Moussa Gouye Gui Bass 2 Moussa Gouye Gui Bass 2 Bass 2 cokaas na léegi Moussa Gouye Gui bas na Moussa Gouye Gui bas na doorante lañ eh bas na door na ko waa ñoo ngi doorante ba doomu daal du ci am Moussa Gouye Gui bas na jël na ko bas na takk na ko da koy biij moo ngi koy biij nañ ci génn nañ ci biti yegg si nañ eh waaw waaw. Eh. door na ko mais bas 2000 saf na de ñoo ngi xeex ba doomu daal du ci am ñoo ngi xeex ba doomu daal du ci am ñoo ngi doonante Moussa Gouye Gui bas de waaw jël na tànk ba jël na tànk ba eh, jël amul arbitre ba àtte na arbitre bi lu mu def nii jël amul de jël amul bàyyi leen ñu bëre jël amul arbitre bi lu muy def nii arbitre ba tas na làmb ja woowaat na leen waaw waaw bàyyi la ñu bëre Moussa Gouye Gui Bass 2 abit baa ngi wax ak ñoom abit bi sëluwaat na Moussa Gouye Gui Bass 2 rëdd rëdd gi foo toll di ko dégg Moussa Gouye Gui Bass Dajaba bayo alima tajay Moussa Gouye Gui Bass xale xeex nañu léegi xeex bu métti bëri nañu bëri bu neex Moussa Gouye Gui door na léegi ku ñaari xale yi tey dañoo bëgg a fan yii man alab lewu Moussa Gouye Gui dema bay bas na bas na door na Moussa ba daw na moom daan ko bas oh. na daan ko daa jël tànk ba ba koo forcé bas na daan na Moussa bas na daan ko

xoolal ma xale ya xale yaa ngay supporté. mooy dafa jël def na yow waay yooyu da ngay toog boo ñëwee nag gànnaaw bi dalal. nga dem ñu dugal ndey recours mu jeex lamb ji jeex bu nu sonal. li nga war a def lii mooy lan. ah toogal toogal wuyu ma noppi. waaw mais demee nii ngeen. sant yàlla bu baax a baax. li nga tuus neex na. waaw alhamdulilah dañ ko sunu temperance ak. le retour de. Bébé Diouldé. tey bés lu mu laaj. waa tey ak dal rek ak déglu code si waa lu ñu ñu bëri loolu. Uh-huh. xam nga booy. waaw bu baax waaw. xam nga ko bu baax. ndaanaan la ndaanaan la. Uh-huh. tey bés bi xeex la laaj wala bëgg. waa dañuy dañuy ñaan yàlla may ñu rek bu rek dóor la ñu wax lépp lu mu laaj rek dinañ ko def. kon baax na ci kanam. jaajëf jaajëf. na ma doon combat bi xeex bi bari. xeex bi faa mu bari. faa xeex bari xam naa. lébu yi di wax naan dañuy juree. ragal la man xam naa ragal la. xam naa ragal la du xeex. dama ragal. kee. booy xeex naa yow lu neex. barke alxuraan koy bu xeex. ragal la lépp sama tànk la ma ut. lan moo tax dañoo gis mu jël tànk bi. nga prouvé de tout ko n'est-ce pas. dama koy bëree dama ko man ay kolu fay de dañuy jël sama tànk ma ciy génne asoom wala kii. ñoo ci des. ñi ci des nañ ñu bëre moom ñu def bu suñ bu suñ numéro 2 dañoo ñu maa nga def bool. waaw doyuloo ko. ñu bëre. mais booy bi day nee na daal. ku daanu. gisoo ko fa mu toog day contesté victoire bi. boo ko numéro 2 nuyu naa la. fay naa la. mais dafa waaw sawar rek. yaakaar naa yëpp doomi den. Ah? doomi den doomi den. waaw naka nga waajee. ah pare naa lépp. mystiquement xeex bëri lépp. waaw. kon na ci kanam. incha ma waxante sa adversaire. Bour Sine 2 Bour Sine 2 laa doon waxanteel. da ngeen doon waxante. Bour Sine 2 tapet la tapet la. ñemewu la ñemewu moo tax mooy loolu instant bi si yàqu combat bi la ñëw quoi. da bëgg a yàq la am. tamoon waa Dóor dañ maa yaakaar. barki Serigne Touba gisoo mbooloo mi yëpp maa gën. li ma leen wan moo tax ñu yaakaar ma ba may topp. mbapat damay jël aareel combat aareel damay ñafe di jël. macha allah sa xam nga waaw. Bou Sine ko sax. combat gaaw. combat bi day gaaw ku yeex tuuti doo gis jële. kon baax na ci kat ci fay dinaa ko daal. arbit baa ngi xool mbër bi woo na leen waa ak saa saawaalo am na lu mu bind tëj ba aga waa saawaalo arbitre ngi laaj ba xam pare nañ arbitre bi sifflé aga waa à gauche saawaalo à droite ñu ngi aga waa saawaalo Saa Waalo moo ngi moo ngi lu bee mujjee beige ak waa moo ngi moo ngi vax bi féete à gauche ak waa Saa Waalo Saa Waalo daa mel ni a dem ak waa Saa Waalo Saa Waalo mbéb na mbébaat ak waa dëkk li dóor na léegi waaye doo ba dalul ak waa Saa aga waa Saawaalo Saawaalo fu mel ni jàppante bi la gën bëgg aga waa daaw na léegi aga waa Saawaalo aga waa maa ngi gis ñoom boo jawoo ko andi njin bu Yoff fekk ndaanaan ñu andi ki ni ni mooy aga waa Saawaalo ngi noonu ak waa door na léegi eh waa door na ko kuubu waa door saa waala kuubu dal ak waa añ ko baraake na ko bañ ak waa saa caxabal ba ba ñoo ko teqaat ko ak waa lu mu bëgg a def nii ak waa saa waalo saa waalo ngi bëgg a door waa jàpp na ak waa Saa Waalo Saa Waalo féete na suuf ak waa lu mu def da ko bëgg a zongale da ko na ko da ko bëgg a na ak waa Saa Waalo sigiwaat waa Saa Waalo ak waa Saa Waalo aga waa Sa Waalo aga waa Sa Waalo Saa Waalo nga dóor Awa Saa Waalo Awa xeex Awa Saa ak waa Saa Waalo ak waa Saa Waalo ko waa Saa Waalo Saa Waalo door na léegi ak waa Saawaalo tobe e da ba na na sin ma ma na na ba ba ti no no aha e da ba be na na ma ma na ba ma ma na na ba e monsieur Babacar Ndiaye qui nag moo représenté son excellence le ministre conseiller auprès du président de la république monsieur Mbaba Ngom monsieur Mbaba Ngom ki mooy ndawam tey jii te ndaw loo gis muy ñëw dara jël ko ko yónni la yor yàlla yàlla dolli sa jàmm Ndiaye. yow yow yow yaa ngi décoté yaa ngi joxe décoration commandant mu gaaw. waaw tuwaat kàlla. ayca des na jox leen jox leen Pape Abdou Fall ko décoration commandant. waaw nee nañu L2 L200 couleur gris DK 71 56 PC mi ngi ànd ak monsieur Babacar Ndiaye nee nañu mu ñëw fi mu taxaw baaxul na ko baaxee circulation bi. ndeysaan le commandant humain bu Dakar. déclaration lop man maa ngi noonu jërëjëf président président macha allah bés bi neex na aw na yoon parce que ñi waaw pour si numéro à droite doomu biir à gauche et on sécurité pour que mbokk yi combat premier combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante Bour Sine numéro 2 ak doomu Deen doomu Deen lu weex li tent bopp bi Bour Sine numéro 2 moo ngeem moo ngeem lu lu li doomu Deen Bour Sine numéro 2. baa ngi wax moo ngi wax ak li làmb nangu ak li làmb bañ. Bou Sine numéro 2 Domou Dene arbitre bi na Domou Dene ak Bou Sine numéro 2 Bou Sine numéro ñoo ngi ñoom ñaar jàppanteeguñu dóoranteeguñu Bour Sine numéro 2 Domou Dene ñoo ngi lewaatoo di demee wet Domou Dene ngay reculer abit baa ngi wax ak ñoom ne leen bërewu ci digg géew bi ngeen bëre Boury Seye numéro 2 doomu den Boury Seye numéro 2 ngeen doon xas-xas loo sànq di ko waxante jëfante leen ko ci biir géew bi Boury Seye numéro doomu den doomu den la ci kawam Boury Seye numéro jàppante nañu doomu dee nañ koy doomu dee nañ koy añ bu si numéro 2 doomu léegi dooraat na bu jàpp na bu si numéro doomu deen bu si doomu deen à Bou Sine numéro 2 ak doomu den ci nekk yaa ngi jàpp di liggéey Bour Sine numéro 2 Deen Bour ko Bour Sine ko léegi mu bañ Bour Sine numéro 2 Deen Domou Deen plaqué ko dàq ko plaqué ba Bour bañ Bur Sine doomu Déel Bur Sine doomu Déel doomu deen a ngay dóor doomu deen ma deen Bur Sine doomu deen doomu deen door na léegi Bur Sine doomu deen Bur Sine nu mu noonu arbitre bi sulawaat na Bur doomu den Bur moo ngi tekk lapataake di ko dugal ca ngemb ga Bur doomu den

Domou Diene am na benn avertissement Bou Sine Domou Déne Bou Sine doon na ko léegi kuumu dal Bou Sine numéro 2 doon na ko léegi kuumu dal eh, doomu den door na ko doonante leen Bou Sine dooraat na ko Bou Sine doomu den Bou Sine Domou Déne xale yaa ngi doonante

arbitre àtte na arbitre jox na avertissement ki nga xamante ni mooy Bou Sine numéro 2 abi atana mi-temps si lewaat na combat bi dox ci diggante doomu déen ak Bou Sine numéro 2 doomu déen moom la ñu lool moo ngeen moo ngeen lu weex rek tente bopp bi Bou Sine moo ngeen moo ngeen lu jaune li ci morceau bu ñuul bi Bou Sine numéro 2 moo ñëw ginnaaw Bou Sine numéro doomu déen Moussi numéro 2 dugal na léegi Bur Sine doomu doomu Déel Bou Sine doo na ko léegi ku xeex nañu léegi Bou Sine doo na ko kuy dal Bou Sine doomu den Sine doon na ko léegi kuubu dal Bour Sine doomu Déne Bour Sine doon na ko Bour Sine doomu Déne Bour Sine na may xeex ak moom baax na Bou Sine doomu Dél Bou Sine Bou Sine a doomu jigéen bu siin xale yi seen combat bi yàgg na eh, Buur Siin doomu den ñoo xeex enchaîné waat na Boursine am na deux avertissement Doomu Deen am na trois avertissement Youssine door na léegi Youssine doomu den ñooy xeex eh doomu den daa mel ni ku sonn doomu den daa mel ni ku sonn Bou Sine doomu deen Bou Sine a ngi koy dóor Bou Sine doomu deen door na doomu den Bou Sine nga door Bou Sine xeex bi arrangé na ko Bou doomu den Bur Sine doomu Déen Yes, yes. Yes, Mara. xarit sama dama day boos maara jaay teel a sama xarit bàyyi laa ko ba fa jaay di ko acca boos maara sama xarit Thank you.

doomu den Bou Sine numéro 2 ñoo ngi xeex ñoo ngi xeex Bou Sine numéro 2 doomu den Bou Sine numéro 2 doomu den añ na ko moo ngi koy forcé doomu den a ngi koy forcé doomu den xale yi seen combat bi yàgg na moo ngi koy zongale ah, dafa diis dafa diis fàq na tel na doomu den tel na ko léegi moo ngi doomu deen bu siin waaye demal ko rek waaye ah lii la laa tax a daal Buur Siin doomu den Buur Siin doomu den Buur Siin doomu den doomu doon ba du siin nu dem saalum baa ak kon yi ne siin doomu den

may la dami ay fay ku de mam boor ay ba kawaya li ñu jot a dégg gan yaa ngi ci yow may la ka dafa yàgg moom lay sagoon sa saani moom lay sagoon moom lay sagoon moom lay sagoon Yeah, yeah, yeah. Usman Bay Bur Sine doomu den Bur Sine doomu bu tëb ci liggéey bi Thank you. moo ak moom waaw. sa diggante ak moom combat la. combat dàqu ko li nga gis lu ne. lu weer laa la wax moom laay weer sama combat moom moom laa soxla. ba ñàkk njëriñ ku ci ñëw pare naa pour bëre gaw. waaw noonu la demee ku pare rek pare naa waaw noonu la demee. ay xale yu ndaw lañu noonu la demee pare rek pour bëre pare nañ pour ñoom. waaw bëgg a bëre moom moo tax ma dégg ko te xam ne bu jëlee combat bi dama koy lu leer laa lamb moo boole di nga war a bëri ak moom noonu la deme arbitre baa ngi laaj ay juge am combat bi dox ci diggante capitaine ak Ndoumbane capitaine iki Songane Gueye ca Tëngéej capitaine Badar Dione capitaine mbokk yi moo ñu féete à droite Ndoumbane moo ñu cokaas na léegi Ndoumbane fayu capitaine ak Ndoumbane Ndoumbane mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw capitaine la ñu jaakaar loolu capitaine la kenn xamu ko te dina wane lu mu doon Ndumbaan da ngay xeex ak moom capitaine Ndumbaan capitaine ak Ndumbaan Ndumbaan moo ñu woon Ndoumbane mbokk yi bay xool moo xaw a gën a diis tuuti ki nga xamante ne nii mooy capitaine eh capitaine doon na ko léegi Ndoumbane remis ko capitaine ak Ndoumbane eh Ndoumbane baaxul capitaine ak Ndoumbane capitaine doon na léegi remis ko ñoo xeex. capitaine Bada Dione Ndoumbane Songane Gueye capitaine wàcc na dóor dugg génnaat capitaine ak Ndoumbane ñoo ngi xoolante ci biir bët combat spécial baa ngi noonu dox ci diggante capitaine bu Bala Dione ak ndumbaan bu Songane Gueye capitaine ak ndumbaan jàppanteeguñu bëre leen baa naan leen bëre capitaine ak ndumbaan capitaine ak Ndoumbane dóor na ko capitaine Ndoumbane Ndoumbane na ko day dóor lu muy def capitaine génnaat capitaine ak Ndoumbane Jogoy basulo alama ci bana xama bajide ñu ngi liwaatu capitaine ak Ndumbaan Ndumbaan Ndumbaan door na léegi capitaine daa mel ni bëggul jàppante bi ñoo ngay xeex capitaine ak Ndoumbane eh capitaine Ndoumbane daw na jël ko takk na ko capitaine ak Ndoumbane Ndoumbane ngay dóor Ndoumbane ngay dóor faax na ko wóor faax na ko daan na ko capitaine waa capitaine lu mu def nii capitaine fàq na ko capitaine daan daan na ko capitaine daan na Ndoumbane capitaine daan na Ndoumbane <laughs> woo woo ku ne Bawol baa yi noonu woo lay lay la la capitaine lu def révélation am na capitaine daan na ko. Uy, mándame el cash. félicitations capitaine ah oui vraiment waxoon naa leen bu jeexee rek jeex na gis nga gis nga mais li nga bëgg lan la. waa man. bëreeguñu sax barke Alxuraan. yow foo nekkoon. man. maa woon ci àll bi. kañ nga ñëw Dakar. yàggul ne ay 2000 xam nga li nga bëree lan la. waaw man loolu moo gën a yem tuuti ci li may bëre xanaa dama seetaan foo bisaan dafal wuti foo bisaan da nga gis lépp ay top 5 lay daan chaque jour mais lii du dara. mais bëree moom lan la ma ngaa grand combat lii yëpp maa ci combat bi. bu mel ni wax su lay bëree li bëree laa bëgg a xam lu mu doon. bëreeguñ dara. bëri moo fi jaar mooy suñu père. ci école la ñu nekk moo ñu teg ci kot mais incha allah rabi li ci kanam. ñan ñoo ci des ñu ci des. li ci des man ma lim kenn xale bu ndaw laa lépp teg naa ko ci loolu ba rajo mais grand combat laay bëre Brise de Mer numéro moo nekk grand combat bi moom ñooy daje. Brise de Mer noonu di lagg. xool ko takkul na instant bi loo yëg ndam rek incha allah Bébé Diouldé ngi noonu am na benn bouteille bi muy sottee ko <laughs> combat yi Brise de Mer la Brise ngi noonu di daw Souleydioul dégg noonu. day jaayoo bi mbokk a ñaari xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi arbitre baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Bébé Diouldé moo féete à gauche Brise de Mer numéro moo féete à droite arbitre baa ngi wax ñoom arbitre baa ngi laaj ay jugeam arbitre laaj na ki nga xamante ne mooy Brise de Mer laaj na Bébé Diouldé mbokk yi il est heures une minute le 20 mars Bébé Diouldé Brise de Mer numéro 2 saako yi fekkiwul kenn abi sëble na ñu demee ba ci wetu saako yi taxaw di lewaatoo Bébé Diouldé wàcc na ba tolloog moom Brise de Mer xale yaay noonu ci digg géew bi Brise Mer numéro 2 Bébé Diouldé Bébé Diouldé cokkaas na tekk di ko déglu cey lamb le retour de Bébé Diouldé il va passer ou bien il va rester loolu ci dara loolu ci kanam lay leer de Tmax Brise Mer numéro 2 Bébé Diouldé Brise Mer Bébé Diouldé dafa bëgg a dem wala dafa bëgg a xeex moom waaye Brise Mer a ngi mel ni ko ko loolu du dëgg ci moom Brise Mer Bébé Diouldé Bébé Diouldé a ngi mét waaye Brise du ko xool arbitre bàyyi ko mu mbëre loolu lamb la stratégie am lay dawal Brise meilleur Bébé dox ci kawam door na ko droite bu dal waaye ci garde bi la dal Brise meilleur Bébé Diouldé Zeme Bébé Diouldé door na ko da koo bëgg a jël waaw bi Zeme Bébé Diouldé Brise de Mer am na benn avertissement Brise de Mer numéro 2 Bébé Diouldé le retour de Bébé Diouldé Brise de Mer door na ko wala boobu Bébé dafa bëgg a xeex ak moom door na ko ku droite Brise de Mer Bébé Brise de Mer dafa bëgg a xeex ak moom waaye Bébé Diouldé dafa Brise Brise de Mer Bébé Diouldé Habib waat na leen ci digg géew bi da ko jox avertissement wala lu muy def Brise de Mer Iba Julde brise de mer Iba Julde moome Bébé Diouldé moo de lale baaxu góor la Bébé Diouldé brise de mer numéro 2 brise ci tànk Bébé Diouldé la bëgg dem waaye est-ce que Bébé Diouldé dina ko ko may Bébé Diouldé nga dox ci kaw Brise de Mer Brise de reculé de mel na ko ko ragal Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer Bébé Diouldé Brise de Mer wàcc na Bébé Diouldé da na ko ñoo ngi xeex génn na Bébé Diouldé taxa Bébé Diouldé taxawal Brise dafa mel ne stratégie lay bëree Brise mais am na trois avertissement arbitre sifflé waat na Brise Mer Bébé Diouldé jël na ba Brise de Mer jël ba lu mu cay def jël daan da koy daan Brise de Mer daan na ko indi na stratégie la andi Brise de Mer daan na Bébé Diouldé kontaan naa. loo bëree. kontaan naa. da nga gis nga daw topp ko mu daw dina topp. dañ ma conseillé. dañ ma conseillé tey. dañ ma conseillé. Petit nuyu naa la. Ousseyn fay naa la. le nouveau roi. Stade Iba dégg naa yow lañ ko dippee wala yaa ko dippee sa bopp. non la aw lam moo ma ko duppee rek ba ma pare ba tey gisaguma ko def li ma defoon chaque dimanche lamb am lañ def gisaguñ ko def mais loolu yëpp sant yàlla parce loolu weesu noonu ñoom jëm li nekk sunu kanam. parce que ñun xam na ne ay xel lañ te ñoo ngi si lamb liggéey te nit boo nekkee si bés affaire di liggéey war ngaa mën a développé war a wàññi mais gëm nañ ne bu ñu lay gën a neex incha allah. ñu gis nga jóge ci le 6 la nga waxoon gars yi ne dinaa fexe stade bi dinaa ko duy ci ambiance dina am yooyu yëpp jot na am ñu jóge fa nga ñëw tëggaat ki nga xamante ni mooy boo Yeumbeul ak ki nga xamante ni mooy euh, nu mu tuddee sax Mbaye Tine numéro 2. combat boobu. bu fa nga a yokk Ousseyn war ñoo Euh, ba yëmbal mbayti muy lamb neex ñu ne war a teg ay xel yu baax parce que a ko daloon jugal parce que moom sama lépp la lépp si lamb rek moom moo ko moom grâce à moom la man aw ma leen lu may ut ci lamb lu moom parce que moom moo ma jàppale xam nga moo tax dama koy sant ko gërëm di nuyu waa Medina waa Bambey Ngoy Alioune si la gëm a dëkk maa siyaar ñëpp nga journée bi am na lu doy waar te nga quoi te nit ku santul nit doo sant ku gërëmul nit doo gërëm yàlla xam nga maa ngi sant di la gërëm di gërëm waa Medina Pro Laval bi ñëpp di wax gars yi nan ma xaar lan demee Korité su ma ñëw di mbaytin ak ki nga xam mooy Boy Yeumbeul bëgg naa benn combat bu mag boo xam ne ci laaj combat bu fu mu toll parce que déggoon naa taxawoo nga benn combat ba bi boobu fu mu bi man ak sama staff ko def sama diggante ak taxaw comprends nga bi moo tax ma na toute te loolu ko gis ñun kontaan maa la gën a kontaan nuyu naa sa caméraman jaayëf waaw moo leen ma wax sànq rek ànd ak ñoom Kalifa Dóo ñu mu amee dem ñum xar Ndiaye oo ñoo ma conseillé lii nee a mbër boo ànd ak sago koo taxawal yaakaar man loolu ma Kalifa Dóo wax wallaahi asim ma gëm loolu. ñu gis mu dàq la benn yoon. waaw dàq la ñaar yoon dàq la ñetti yoon. waaw ba nga am trois avertissement ñëpp ne. Brise de Mer ñemewul ki nga xam te mooy Bébé Diouldé. amul ku may ragal amul mër amul mër muy takk ngeen ma si làmba ji ma lay ragal dan may conseillé damay ànd ak ñu baax ñu may conseillé moo tax may bëree ma taxoon ba tamit da dama koy daan daal mu gaaw dem ñibbi. nga jël tànk bi. mais damaa conseillé moo tax dana la brise may ko ñaari ngaari yéen nga xool ah. déggoo xola damaa ne ma taxaw ren teg moom troisième fois bi mais dafa xaaral sama gànnaar li ma wax naa ko doxalee ba xam. ñan ñoo ci des. Eh, gars yi. ah yan. daa sedd daa sedd. ma fayoon dana ñëw caala ñu waxtaan. Ah. waaw loolu laa bëgg. dinaa ko ñëw incha allah rabbi.